di amaat encore une fois mbégte euh, di jàkkaarloog yéen euh, par rapport ak euh, suñuy entretien hebdomadaire yi nga xamante ni dañ koy faral di amal tey ñu ngi fii nga xamante ni moom moo di au niveau donc de Sacré-Cœur pour waxtaanee li nga xamante ni éventuellement comme ni ñu koy faral di defee moom moo di tolluwaayu réew mi ci wàllu politique ci wàllu société ak yeneen Eh, yeneen i mbir yoo xamante ni tamit dina soxal eh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di suñuy internet ak sénégalais yi de manière générale ñu am mbégte eh, di waxtaan ak tey kenn koo xamante ni jeune la di yëngu ci wàllu politique nekk fële au niveau de l'Assemblée nationale ci treizième législature bi nekk fa député nekk fi nga xamante ni moom moo di parti démocratique sénégalais kooku jeune la ndaw la jotoon na fi jiite structure bi ñuy wax UJTL bi. ngànkoon euh, ndaw yi yëngu ci wàllu politique féete foofu ci parti démocratique sénégalais kooku du kenn ku dul euh, le député euh, Toussaint Manga ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu seen téléspectateur yëpp di rafetlu tam seen liggéey vraiment seen taxawaay si askan d' accord Toussaint Manga dañuy dugg juste ci li nga xam moom moo di moo soxal tey sunu sunu sunu sunu ndaje sunu waxtaan Euh, ñu jëmale ko généralement ci li nga xamante ni moom moo di euh, entité boobu nga xamante ni fa nga nekk muy euh, force Covid 19 nga xamante ni bokk nga ci comité bi nga xamante ni moo koy piloté nga fay représenté ñi nga xamante ni ñoom ñoo di liberté démocratie parti boobu nga xamante ni moom moo di parti démocratique sénégalais nga nekk waaye tey nga doon fa ab ndaw di saytu ni ñuy liggéeyee ak mbir yi na muy doxee foofu tey mën nga ñëwaat un peu ci li nga xamante ni jot ngeen ko fa def depuis mbas mi bi mu tàmbalee léegi ak euh, li ngeen jot a leeral ci fànn woowu. waaw euh, comité bi euh, buñ ko taxawalee ba léegi liggéey nañu liggéey bu am solo parce que bu ñu dooree liggéey bi li njëkk a def mooy toog waxtaan suñu biir nu ñu war a doxal comité bi. buñ ci paree ñu def suñu feuille route xool ñun si liggéey bi lan lañu bëgg atteindre comme objectif loolu buñ ko waxtaanee ba pare ñu commencé nag activité yi activité yi danga koy jël si ñaar fan am na boo xam ne si terrain bi la am na boo xam ne ak

dinañu waxtaan ak acteurs yi acteurs yi waxtaan tamit ak population bi parce que ginaaw bu ñuy saytu fu alal alal boo xam ne gouvernement bi mobilisé na ko dañuy xool tamit lan mooy impactu xaalis boobu ci population bi donc mu laaj waxtaan ak acteurs yi waxtaan tamit ak population bi donc bu doon boo demee si zone touristique di nga waxtaan ak acteurs touristiques yi hôtelier yi mais waxtaan tam ak ñeneen ñoo xam ne dañoo bokk si mbirum tourisme ba xam ndax ñoom sentir nañu taxawaay état si pandémie bi wala sentiruñu ko ndax jot nañu bénéficier wu si fonds boo xam ne mettre nañ ko à disposition wala bénéficier lan mooy problème bi ak lan mooy gàllankoor yi d'accord secteur transport même chose mm-hmm. si c'est de l'équipe bi tamit dañuy waxtaan la population yi am na ñoo xam ne ñun wax ñu problème yi mais problème yi ko parce que comme nous ñu ko souvent si risque euh, si RNU bi mm-hmm. national unique mm-hmm. donc loolu def nañ ko si 45 départements bu ñu ci jógee tamit euh, rendre nañu visite ay ministère yu bëri ak ay services yu bëri ak ay structures hospitalières yu bëri lepp lo xamné dugg na si si si si xeex jàngoro bi. d'accord comité bi dem na fa waxtaan. mais concrètement liguey bi euh, exactement euh, fan ngeen ci toll euh, d'après li ngeen jotta def ci wàllu caytoog yu ni mel est-ce que mën ngeen tey toog. à mi-parcours ngeen wax peut-être ngeen xamlé yenn secteur yi gëna soxé ci pandémie bi ñi nga xam ne gën nañ ko yëg tey boo ko doon énumérer yan secteur lay doon. waaw euh, lu ma la mën a wax mooy secteur yëpp a sooxee si pandémie bi te loolu saa yoo amee rencontre ak acteurs yi ñoom dañ la wax jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko mais euh, luñ ci war a gën a mën a jël comme njëriñ si cadre liggéey bi mooy euh, pandémie bi daf ñu permettre dafa tax ba ñu mun a xam. ay aspe prioritaires yoo xam ne dans le passé bàyyi ñu ci woon xel mën a xam ni léegi lii dañ ci war a taxaw pour ëllëg bu dara ñëwee bu mu ñu bett surtout si secteur santé bi comme que kay pandémie bi mbir mu santé la mbirum wér-gu-yaram la euh, luñ ci gis laaj na suñu doxee suñu rapport dinañ ko dinañ ko fa énumérer rapport final laaj na pour ñu xoolaat Nous ñu taxawee mbirum wér yaram parce que am na ay dispositions yi bëre dañ ci wara ci anticiper bu ñu anticiper wul rek lu ñëw def ñuy bett té comme am nañu expérience bi donc dara waratuñu na bête. ëllëg nañ mën a xalaat ci l'après Covid l'après Covid exactement té amna recommandation forte yo xamné comité bi na ko def euh, ci suñu rapport parce que bu ñu defee suñu rencontre ak lu ñu gis ak ñu waxtaan ak

waaye bu ñu xoolee euh, euh, dañu génne won benn euh, somme globale bu toll ci juróom benn fukki milliards ak juróom-ñeent 69 milliards loolu ki ko doon piloté di Mansour Faye bon ñu bëri ñu ngi jàpp ni peut-être li mu bokk ci nguur gi goro Macky Sall moo tax peut-être muy def yenn yi d'ailleurs sax yow am na sortie boo def amna peut-être contribution bo génne di wax ci li nga xamante wax na fan U.S. yees muy bañ a tontu ji bañ dem ji of da jàpp ni OFNAC euh, dafa am ñu muy euh, seppi wala ñoo xamante ni peut-être dañ leen privilégié au détriment des autres. waaw man dama jàpp ni euh, ministre Mansour dafa def erreur de communication boo xam ne te dafa grave xam nga am na posture yooyu toll ci état am na loo xam ne mënoo ko wax parce que day mel ni ay défiance la wala day mel ni yow kenn mënu la. saytu wala kenn mënul xool yow looy liggéey. Mhm. day mel ni voilà institution yoo xam ne état yi def na ko. Mhm. pour mën a xool lépp loo xam ne moo jëm si transparence yow da nga ci beddeeku yow kenn du la laal. erreur de communication def te il faut mu rectifier ko si réew mi jàpp naa ni képp koo xam ne sénégalais buñ la dënkee alal réew mi war nga mën na wuyu. leeral te jàpp naa ne loolu du problème parce que au contraire dafa lay gën a crédibiliser boo doxee si saa yu ñu la laaje nga dem wuyu nga leeral booy bañ day mel ni dafa am looy nëbb walla am looy ragal te loolu day tax ba xel nit ñi xaaw a tey justement sax est jàppoo ni peut euh, xëy na dafa amul lo xamanteni war na len ko meuna wax motax xeyna xëy mu ne jarul mu fay dem. di wax dara parce que peut-être xeyna na à son niveau lépp leer na. am nga déglu nako ko euh, déglu naa ñun buñ fa dem woon euh waxtaan nañu ak mom après mu waroon joxe ay quelques éléments de de de de de de réponse mbir yi xam naa xawoon na ba mu amone ñu jëloon cadeau wax par la suite mu envoyer ay éléments de réponse. euh mais bu ma koy déglu euh, dafa ne comité bi lu leen intéressé woon mooy ciblage bi lu intéressé woon mooy distribution mise en place mais dafa def erreur du loolu loolu c'est vrai que bokk na si lu ñu intéressé donc mais comité bi lu ñu gën parce que loolu c'est un peu technique ciblage mm-hmm. bi ak yooyu ak euh, disposition de distribution bi mais lu ñu gën intéressé mooy luñ ko denk ci xaalis bi nako la ko utiliser ak ndax jaar na la jaarul yoon lolu moy élément fondamental bi ñun lolu moy suñu lolu la ñuy saytu parce que président bu muy tek comité bi lu mu waxone moy pour joxe gage de transparence ak tamit pour ñi mëna top liggéey bi dina installer comité bo xam dina jël fep si réew mi ay institution yi mu mu mu mettre ensemble pour ñu mun ci liguey mais bu mu communiquer fofu sur le sur ce plan là mom dafa melni ni dafa ne ni ñun aspect technique bi moo ñu intéressé moy ciblage ñun lolu intéressé nañu ga mais du loolu principal objectif comité bi principal objectif comité bi moy buñ la la euh ay crédit financier mooy euh, budget. est-ce que ni yeen sax en fait dafa. Euh, parce que ñu bëri ñu ngi jàpp ni peut-être xëy dañ ko jox lu bari li fi doon bañal Karim Wade di ko ci critiquer daanaka jox nañ ko ko euh, li nga ni moom di ay ndogal yu jëm ci euh, jaww jeeg joor jeeg fu ne fu ne ñu jël fa peut-être ay pàcc jox ko ko est-ce que jàppoo ni peut-être xëy na loolu galvaniser ba mu peut-être am sañ-sañu di wax yenn yi tamit. non bon même pas man du juger sax si luñ ko jox luñ ko jox nga sañ-sañ président la président. Euh, constitution lu ko may rek Ce def euh, su ko euh, constitution ko may quoi lolou man du ci du ci duma ci sore man luma bëgg wax te posture la posture sensible la yor donc bu une posture sensible en tant que ministre qui ci nek goro président dafa am lu éviter C'est tout à fait normal vous frère président goro président wala doomu président nit dañuy baye xel lu si def ak donc mom lu waru ko posture am. Mhm. parce que mom war na pas nek homme d'état ba taxaw nga ne man telle institution bu ma wuy suma mais lan moko waaw xam nga euh, mun nga ko analyser ci plusieurs faits bu ñu doxalee yoon politiquement Macky war na jël ay mesures ci naka boo amee ministre mu yow nga def ay institution yoo xam ne daf ci war a uyu ministre bi ne lànk moom du dem du dem uyu loolu boo jëlul ay mesures day mel ni yow da nga am soit faiblesse wala da ngay dawal sentiment te mbir mi du affaire sentiment mbir mi affaire état du affaire famille affaire état la état république la république amul kiis sama mbokk la amul kii sama goro la looy tëral nit ki ak lu mënta doon daf ko doon respecté tey jii nii bu doon beneen ministre moo taxaw défier nag noonu gëm naa ni dinañ ko dina am loo xam ne ay kaddu yuy jóg ou bien dina am ay sanctions yuy jóg mm-hmm. donc bu Macky bu mu wanee faiblesse si loolu. est-ce que sax mënuñu comme comme comme moom def na nii est-ce que duñu jàpp ni am na ministre bu desoon bu deful woon déclaration patrimoine est-ce que kon jàpp ñu ni sax du du faf doon moom mm, bon je pense que ñoom expliqué nañu ni euh, lu taxoon euh, déposé wu loon xëy na dina déposé dina déposé déposé na si diggante bi mais Euh, taxaw défier institution publiquement en tant que ministre de la république xam nga lolu loolu euh, ëllëg citoyen bu taxawee défier benen institution euh, amul lu ñu koy wax. donc da ngeen japp ni dal président war na ci jog lolu mom mo wara régler. war na ci jog te japp na ni ñun ñëpp tolo ci kanam loi bi Euh maay fàttaleku Macky da ne woon bi waaw pour ñu fi nekkoon la waye OFNAC nak pour ñun ñii la sama gaay donc ku ci nekk na xam ni duma ma protéger kenn ku ci nekk na bàyyi xel na ci bàyyi xel léegi yow boo nee nag pour ñun la ministre taxaw ne ñun nag munuñu convoquer du ñu dem. day am xaar jeeg seen. donc finalement OFNAC pour kan la loolu laay laaj. donc da jàpp ni am na. non am na problème problème bu mag am na Macky Sall moo taxaw mu ne CREI bi. pour ñu fi nekkoon la OFNAC naa créé nag mu ne gaaw mi nag pour ñun la mu créé nag am ministre taxaw bu ne man du ma uyu nag man kenn laa rendre compte mi Macky Sall moom bu amee sañ-sañ wax loolu may na bunt ne ministre yëpp taxaw ne ñun su suba ministre boo bu mu neex taxaw ne man du ma uyu nag Macky laa rendre compte. est-ce que loolu lu ci OFNAC kese parce que OFNAC kese tamit jàpp nañ ni ñoom bon dafa mel ni euh, dañoo am les mains liées non ñoom dañuy def seen liggéey amuñu lee mains liées am nga OFNAC dafa am ay prérogatives am mën na woo nit saytu ko bu bëggee mu denc rapport bi def ko si rapport bu bëggee mu jël jëbbal justice ba léegi OFNAC ngi def liggéeyam correctement léegi ku ñu woo bañ ñëw uyu si kooku moo wàcc yoon lu ma man lu ma bëgg a laaj mooy bu doon ñoom ministre yi mënuñu uyu OFNAC kan moo war a dem OFNAC kan kon OFNAC pour kan la donc bu donnez ñoom mi di gérer euh, ay ay départements yi am solo pas wuyu OFNAC ban citoyen mooy dem OFNAC donc d'après naa ni franchement euh, position Mansour kenn mënu ko justifier kenn mënu ko expliquer Diop Sy député la OFNAC bu mu ko ooyee dafa dem uyu mais Diop il est élu am immunité bañul bu bañoon tey xam naa ñu def ko tollé bu mag wax donc pourquoi moom nga xam ne ministre la waroon na dem uyu kenn neew la boo demee of dem of nag du du du caage ne nga ñëw ne la danga def dañ lay laaj dañuy saytu dafa am loo xam ne ni wax nañ ko teg nañ ko sa sa sa sa donc da ngeen jàpp daal am na lu muy nëbb wala am na lu leerul état bi moo doxul sur ce plan là te waruñu continuer muy demee noonu parce que jurisprudence le, pour ëllëg dès lors que Mansour bañ na dem uyu OFNAC ministre bu ko neex tee mu bañ dem uyu OFNAC luñ ci mën dara. d' donc de déstructurer suñu organisation état. Hmm, d'accord accord ñu boucler point boobu defe naa loolu leer na dañuy ñëw structure bi nga nekk bon je veux dire institution bi nga xamante ni fa nga nekk muy assemblée nationale. Hmm. Euh, kii di Moustapha Niass diriger ko. Euh, ñu nemmeeku fa donte sax xëy na peut-être xaw na wàññeeku waaye gis nañ fa sa taxawaay des fois da ngay. Euh, peut-être euh, am ci yenn point yoo xamante ni buñ koy waxtaanee xëy na boo jàppee nii am na ay lënt-lënt nga teg ci sa tànk waaye tey est-ce que euh, liñ doon séentu liñ doon gis du moins 2012 liñ doon gis du moins ci douzième législature bi ak yi ko jiitu yépp tey nga jàpp ni changé na wala am na lu bari lu des lu war a soppi. non assemblée moom jàpp naa ni ba léegi yéene bu ñu amoon ak fu Sénégal yi doon xaar pour ñu egg fa mm-hmm. egguñu fa. Euh, liggéey bi lu mu naroon am ci biir assemblée bi amu ko te euh, loolu boo xoolee ci sénégalais boo leen laajee ba léegi ban impact la assemblée am ñoom ci seen vécu quotidien dañ leen assemblée daal amul benn njëriñ cela ne veut pas dire que amul ay député yu liguey. Amna ay député yo xamné ñu ngi Ils ñu ngi di taxaw wax sax opposition wala non inscrit même sax si majorité bi sax amna ne représenter dignement le peuple sénégalais la majorité bi mhm. am am mhm. mais système la bo mën nga am yéene bi mën nga bëgg a liggéey mais duñ la may nooy liggéey et duñ la permetre nga liggéey correctement. kan moo nekk à la manœuvre ci loolu lépp jafe-jafe yooyu nga jàpp ni peut-être est-ce que tey euh, député yi amuñu ci part de responsabilité bu gën a mag tamit. waaw waaw responsabilité yi dañ koy mën nañ ko partager mais lu ëpp si responsabilité bi mouvance présidentielle moo majorité. majorité nak kenn mo koy incarner fofu parce que waxon nañ fi waxi séparation des pouvoirs tamit ku ci nek ñu. non séparation des pouvoirs mom gars dañ koy jangal gaay ci droit bi nii rek mais séparation des pouvoirs mom amu fi séparation des pouvoirs mom fi mom amul amul franchement. Hmm. non non non non loolu mom dañuy jangal gaay droit. kon assemblée lu fay dox. lu mu la mën wax assemblée moy hmm. bo bëggee doxal duñ la may nga doxal ñom duñu doxal duñu pousse duñu avance. Je ngi vous ma jox exemple si Le le problème bu la pandémie Nous avons di pour contraindre faire au niveau la santé mhm. service qui qui ci impliqué le gouvernement a sax taxaw mobiliser il faut que mobilise euh, milliards pour xool mu am un comité stratégique de mise en œuvre euh, fonds assemblée muy faut que ne le représentant peuple bi nekk ñu quelques mois musul am sañ-sañ le ministre de la santé nous ko expliquer ñu fooy jëm ak sénégalais yi si xeex mbas mais loolu à titre information la rek bu ministre bi ñëwoon taxaw assemblée jàkkaarloo ak député yi mais jàkkaarloo ak sénégalais yi en direct ñu laaj ko lu ñu xalaat lu ñu laaj ko jumtukaay yi ñu ko jox moyens yi ñu ko jox ndax doy ne wala doyul ndax jàpp na lu ñu ko jox dina ci génn ci génn lan la foog ni war nañ ko mën a renforcer ñu laaj ko fu mu toll ak lépp

bu ñu ñëwee ba am problème yi mel li ñu gis Kër Massar ak feneen xam nga dañuy wax Kër Massar rek mais inondation yi du Kër Massar rek problème yi am na fu nekk Kër Massar problème yi am na Ziguinchor problème yi am na si région yi bëre loolu bu amee muy problème majeur dañu war a ñëw assemblée woo ñu gérer plan bi lutte contre les inondations woo directeurs yi Nous waxtaan ak ñom sénégalais yi lu ñu leen dénkoon nous ci def. lan la fan la mobilisation bi. lan mooy problème bi expliquer sénégalais parce que dañu war rendre compte sénégalais te lu l'Assemblée am nationale. représentant peuple bi toog poser des questions, ba pare ñoom ñu wax ak représentants sénégalais en direct la télévision ñëpp déglu seetaan ñu yoon. mais si bañee nit ñi ñëw poser des questions ministres ou wala directeurs nga ne da nga mission d'information. La mhm. mission d'information euh, députés. Mhm. ne dem leen dem dem dem def rapport. ci ci suite. amul solo. Mhm. parce que amul impact. D'accord. amul impact même si da ngeen def mission d'information, warul tere mais nous, nous représentons représenter peuple Le peuple bi am jafé jafé. jafe amuñu occasion pour nous a wax peuple peuple bi porter sa voix comme dama jàppat dama gisatul naka la ñuy nekkee représentant peuple bi assemblée du ñëw euh, voilà session euh, euh, session nous mu encore budgétaire budgétaire, bu votre rek ñu budget yi après ñu L'Assemblée de loolu il assemblée loolu lolu japp na ni ben parti la rek. pour voter loi des finances ni lolu euh, dafa lu normal la. donc ci tënk daal da nga japp ni euh, mbir yi sooxe na foofu bu baax. assemblée non man kay assemblée nu muy nu muy kay man mom doyuma. Mhm. D'accord. accord donte sax yaa fa peut-être xëy di di di bañ ci yenn point yu bari yu amal mais dañ fay jógee toujours euh, mais dañuy dugg ci question politique yi ñu gis ni ku engagé nga au niveau du parti. li eh, nga xam di parti démocratique sénégalais eh, nga nekk toujours ci ki nga xamante ni moom di moom eh, mooy ki sanc parti bi muy doxal di doxal loo xamante ni peut-être ñu bëri ñëw nañ après adhéré ci depuis 1974 nga nekk jeune yoroon UJTL tey ñu gis parti bi am ay fissures yu am ay jafe-jafe ñu bari di konakarlu, don donte sax peut-être yaa ngi ci di liggéey ba léegi nga ni lu na ci parti bi de am na crème bi daal maanaam jóge na fi non d' abord maay préciser que maa yor UJTL ba léegi. Mm-hmm. maa yor UJTL ba léegi mais xam naa fu ñu demee si organisation rek dinañ xool si ndaw yi euh, koo xam ne dina ma dama ci utu. dina ci utu. yi mm-hmm. euh, nga PDS PDS parti la parti PDS du mouvement. Mm-hmm. du association mais parti la. yàlla def. président Abdoulaye ni responsable moral parti bi ak ñimu andalon àndaloon fexé ba buñu créer parti bi dañ ko créer si ay valeurs yo xamné day sax si kep kuy militant bo nekkee militant PDS day jafé pour nga génn

Nous avons 46 rek PDS ans Nous nga tamit depuis 46 ans 1974 Nous nekk les mêmes acteurs qui fi en 2020 Nous sommes les mêmes acteurs qui fi en 2030 Nous sommes les mêmes acteurs en 2040 c'est un problème différence parce que parti. Mhm. c'est une vie si une vie vie, dina am ñuy dem. Mhm. dina am ñuy dina am guñu après. Mhm. une vie. bëgg nga une des partis une vie. responsable nga xam ne ñu am tur te tur boobu ñu ngi koy am ginnaaw yàlla ak seen waajur ñu ngi koy am si parti bu ñu bokk moo tax sénégalais ñu ci bëri xam leen même bu dee am na ñoo xam ne def nañu seen liggéey bopp waaye lu ci ëpp dañoo bokk Sénégal ànd ak Ablaye Wade moo tax nit ñi xam leen mais responsable yooyu ñun ñi xam du ñooñu ñooy PDS PDS mooy boo demee tey si benn village Netebulu nga dem ci benn village Sindian wala nga dem ci benn village euh, boo munti xalaat nga fekk fa ay pa ay mère ay jeunes mhm. ay femmes yoo xam ne ñooñu ay militants leen ñooñu nag. mais tey ñooñu. ñooñu ñooñu génn est-ce que tey reyuñu PDS parce que ñooñu. bi ñu génnee ba léegi bàyyi ma ñëw rek gisatuñu pratiquement. ngeen def gis nga ñooñu nit ñi xamul. Mhm. ñooy fal ñooy parti te ñooñu kenn xamu leen ñooñu nag. donc ñi génn da nga jàpp ni duñu dem ñi génn da nga jàpp ni amuñu impact ci euh, maanaam amuñu poids ci parti bi. xam nga xam nga politique ku mel ni tey munoo munoo munoo ni amul poids. xam nga politique C'est politique ku euh, euh, bon na toujours de bons rapports avec le président Mohamed kazalika qui dit euh, le ministre d'État Habib pareil nous, ñëpp ay ay un ñu poids parti non xam politique. pareil mhm. politique c'est vrai que mën nañ la bëgg sa gox mais day fekk nga pas, fenn ni bëgg bëgg la si ben le coureur. ñi de homme politique Sénégal erreur Tem man conception bobu sax ko nangul nit ne ñi samay militant ñi ma len mom askan bi citoyen lañu ñi dañoo yew kenn momul kenn lélé nga am teranga bu la yalla jox. da kay jox askan bi c'est vrai. donc da nga ni yow PDS euh, manam la fa fa. non lu fa néwon même pas te naa rendez-vous buñu commencé suñu activité complètement di nga sa d'accord Qui dit Karim wad, ñu ngi koy wax euh, mom mu ngi négandiku euh, euh, ya tok fa rek ne nem daka ñoragul ñoratul wala lan la lu xew. non yo xam nga ñun ñep xam Karim. fu mu nekk noonu fan yi sax ñu ngi ko doon waxal ay wax yi actuellement éligibilité ak yu ni mel est-ce que loolu dañ koy sax euh, frayel yoon ngir mu ñëw non xam nga d'abord fu mu nekk noonu euh, lu ma mën a wax mooy xam nga munu ko munu ko neex parce que euh, bu dul dara président Abdoulaye Wade muy muy bàyyam ñu mhm. ngi fii Sénégal donc ku ci nekk boo sañoon xam nga sa waajur mhm. nga koy gis sa su surtout bu mhm. tolloo si âge bi mu toll donc mom nekku fi mais bu sañone suba suba suba mu nek Sénégal lu côté kon amna lu côté lolou nak mm. dang koy laaj Macky Sall mi nga xamné mu ko jëloon yóbbu ko ah loolu kay yéen mën nañ leen yéen bokk parti donc war ngeen mën peut-être non euh, Macky si boppam moom xam na Karim ñëwul lutax bëggul Karim ñew ba légui

nit buñ la exilé nag. Mhm. da ngay nangu dogal yàlla rek. mais tam exil boo gis. Mhm. am na fin. est-ce que du lim ko yóbbu moo tax xëy na peut-être mu am fitu di wax waxi troisième mandat loolu bokk na ci point yi nga xamante ni jëlee woon na fi Abdoulaye Wade récemment peut-être am na ay ñooñam yoo xamante ni xëy na àddunañ ci mu dàq leen ñeneen ñi mu téye leen peut-être xëy na selon euh, moom ay euh, propre raison am waaye tey. nan nga jàppee jafe-jafe boobu noonu di sénégalais di dund. non wàllu troisième mandat bi yow jàpp nga ni Macky Sall moom war dina ko def. xam nga xam nga troisième mandat. Hmm. troisième mandat ku ci nekk ak yow looy défendre mais troisième mandat bi lu tax ñoom ils sont mal placés pour ñu wax ko. Nous PDS nous défendre le troisième mandat parce que défendre. ah défendre. parce que c'est la même chose. parce que nous, ngeen doon le troisième mandat donc vous êtes le plus mal placé. non non non. si dama le PDS mën défendre le troisième mandat du problème parce que tout parce que candidat en 2012 poser posé troisième candidat du mandat expliquer ni, war na expliquer ay raisons donc nous ne question bobu ñun ça nous gêne pas. mais dafa war gêner Macky Sall. wara a gêner ñu en ak Macky Sall en 2012. parce que bobu, ñom bu Ablaye posé problème candidature bi dit taw ne sénégalais yi ni Ablaye dafa jalkati yoon. Macky jël mer de dem fanani obélis ngir bañ troisième mandat da koy mais des mu ñëw ne damay soppi constitution bi verrouillé ko kenn du fi defaat troisième mandat muy waxal ak sénégalais ba jaral ko mu def référendum. mais référendum référendum bi boo boo dégloo. bàyyi ma ñëw ci bëri sax wax nañ ci. bàyyi ma ñëw ci yoon. waaye ma ko mën a def bàyyi ma ñëw. mu def référendum. changer constitution ba pare mu ne exclu nul ne peut faire exclusivement deux mandats mu ne ma verrouillé naa constitution mu bind ko si livre am jël kàddu wax ko ñëpp dégg léegi boo taxawee wax loolu yëpp. waxuma la sax politiquement mais moralement moralement waroo am sax xalaat wala am sañ-sañ taxawaat ak Sénégal yi ne leen léegi dama bëggaat troisième mandat moom li mu defoon li mu defoon li defoon ci jamono jooju yéen xam nga tey moom def na effort yu bëri pour xeex loolu est-ce que yéen tey bu demoon tey ba nas yéen pare ngeen pour def pareil wala ngeen def plus que li mu defoon ngir bañ loolu ma dañ koy non dañ koy parce que yéen gis nañ ni vraiment ab yaafus goo xamante PDS wane na ko vraiment ci peut-être lu bari est-ce que tu as nga euh, pare ngeen pour. def m'expliquer bàyyi ma expliqué la bàyyi ma expliqué la. askan wi loolu lañ leen di reproché. lu ma la lu wax constitution bi bu jaral ñu dépensé ay milliards pour def référendum ba Macky Sall taxaw si boppam man verrouillé naa constitution boobu constitution boobu jàpp naa ne kenn mënu ko war soppi. donc problème bi du question de troisième mandat problème bi problème de violation ou par la constitution qui a été verrouillée où on dit nul ne peut kenn monde def exclusivement deux mandats problème bi foofu la léegi mais est-ce que nit mën a tiñal ci dara tamit comme lan est-ce que tay par exemple euh, yéen jàpp ngeen ni warna na revenir euh, sur cette décision. kan mu revenir sur décision Macky Sall manam peut-être bu demoon ba nas ko. mais day la consti day day day kii constitution bi day violer constitution té te lay wax ben affaire. amna ñuy né non constitution bi ci diggante bañ ko changer donc mandat bi mënul bok xam nga loolu. bu doon nonu lay démé comme président bu fi ñëw su ko neexee def 4 3 4 cinq mandats mooy maanaam boo installer woo rek nga changé constitution bi sa mandat boobu du ci bokk. kon rétroactivité de la ah, loi bi ñu wax loolu politique boobu la gars yi jël instant yi moom la Ouattara jël instant yi moom la Macky jéem ay nitam loolu la wax ni mandat boobu bokkuloon donc ça ne sert rien nga changer constitution bi loolu yow da nga bëgg vérifier constitution bi bien yow da nga ne il faut que nit ñi def deux mandats léegi sama xeet sama xalaat daf ma jox nii constitution bi dañ koy verrouiller ba kenn du defati ñaar mandat da nga war a ne léegi sama mandat si boppam dama ko ci boole daf ci bokk te moom bii daf ci bokk parce que dafa am moo boo xam ne dañu ne kenn mënul def ñaar mandat yu toppante moo boobu mais boo xoolee moom mu wax ne maanaam ko verrouiller moom moo ne daf ko daf ko verrouiller léegi nag bu ko verrouiller kay kañ la ko déverrouiller bu mu déverrouiller ko il faut mu delluwaat encore référendum bu ko naree jëmbal nar ko dëggal yéen seen posture lan lay. non lu ma la mën a wax Macky mënu fi am troisième mandat ah su ko bëggee de mën na ko am. su ko bëggee def na fi mu jàll. parrainage mu jàll coow lay bari rek. mais yéen yéen à chaque fois c'est le même discours naa la ko garantir. du mbirum PDS du mbirum PASTEF du mbirum euh, benn acteur politique mbirum sénégalais yi la sénégalais yi nag dafa am fu ñuy toll. ils savent se faire respecter. mais sénégalais est-ce que sont nañ Ils rek ñoom 58 pour cent deuxième deuxième mandat am sénégalais garantir acteur politique activiste dire, la tu wax mhm. te nga signé ko te dans wax ne ci troisième mandat. non lu gën si moom un koy conseillé sage parti dem élection. est-ce que mënul nekk ci parti keneen tamit sax. su ko neexee. su ko neexee en tout cas loolu ñoom la mais mom, mom, mom, c'est verrouillé c'est verrouillé bind na ko ci livre ne maa ngi ñaan sama dernier mandat. moom moo bind. xanaa kay loolu bu ko waxee ba pare kay damay bëgg chef d'État yi. Mhm dañu toll ñi nga ñu mayoon jamono ñoom Abdoulaye Wade ak yooyu yooyu beneen étape la c'est normal dans la vie dans la démocratie ay démocratie yu jël mais am na fu ñuy toll si année yi 2020 beneen génération la du génération suñu maam yi lii beneen génération la beneen ay citoyens yoo xam ne ils sont plus ancrés léegi si chose politique parce que avant ça politique suñu yaay yi suñu maam yi ñooñu ñoroon kii si politique jeunes yi. d'accord xamuñ ci woon lu bëri mais léegi. Mhm. beneen type de jeunesse nga am. Mhm. boo xam ne du du nangu avaler. avalé en tout euh, jafe-jafe mandat bi dina indiwaat problème bon émission bi. moom mooy am moom mooy am problème moom Macky bi mandat bi defe naa. Mhm. li ci doon euh, li ci li ciy gën a nekk effort biñ ciy gën a def. Il mu a ci parti bu parti non ak opposition bi nga dañuy. mais opposition bi déjà dañuy non non non opposition bi dam lay expliquer. opposition bi kan nga fi gis sur le terrain à part Sonko. non luma la mëna wax. luma la mëna wax PDS. PDS. Mhm. bu bu mi ngi sur le terrain. mais ñun Abdoulaye si boppam bu premier cas bi la jël décision né arrêté na y mesure Il y mesure mais partielle parce que dans opposition terrain bi la terrain bi dafa am lu muy laaj. mais opposition tamit man na une stratégie. def ay stratégie même si féké du rassembler ah. terrain di dem sax peut-être di dénoncer. wala di mais PDS PDS fop mais yéen bu dara xewé ngén génn communiqué wax rek suñu suñu suñu rôle. Mhm. ñu koy def bu mu def ñu jël position a jël position assemblée bu y a une position bu ñu mënta bokk position. gars là, muy Il y marche bu am solo. taxaw wax Macky Sall ni c'est tout fait normal a ni. opposé mais comme nous tamit may ni son audible. si si si si opposition ah il a. non non il gën audible. Mm-hmm. xam nga mi ngi si terrain Lolo, euh, c'est pas mal dañ koy dañ koy encourager nous ñun tamit PDS ñu ngi activité bu ñu activité mhm. terrain bi mhm. malchance bu ñu am par rapport ak parti yi parti am seen leader si terrain bi ñun suñu dafa exilé loolu day am impact ñu bëgg ko ñu nangu ko ñu bañ mhm. impact si suñu suñu suñu visibilité mais bés bu bu Karim vous, tànk fii rek tamit ah, nga xam ni ngeen affaire dina changer bu Karim ah non ça c'est sûr hmm. Karim bu faites tant que, euh, dina changer positivement plus encore PDS être des gueules, des gueules bouillants. ça loolu moom. te loolu le mën nañ jàpp ni yàggatul. ngi ñaan mu te ni euh, nga mbokk internet yi. Euh, di di di di si si si si si rôle mais naxarlu tamit lu am dëmb si seen concert boobu waaw Adja euh, di ko euh, di wax rek ni euh, service d'ordre yi dañu war xel ni citoyen du ñu seen ay ennemi waxatuma la encore homme de ligai, burafete, parce que ñoom ligai liggéey bu médias yi ñoo koy donc nous a un problème avec les médias Nous mën problème avec l'opposition, parce que nous mais pour liggéey média nitu askan bi la lu pour donc vraiment nous éviter les dérives. et euh, mesures pour que bu mhm. que ce soit euh, vraiment un incident bu ñuy dépasser. Mhm. vraiment di di rafetlu émission bi di leen di continuer ce domaine merci beaucoup encore euh, une fois il y a eu la bu baax ci disponibilité à chaque fois euh, Dakar Actu day rafetlu di rencontrer parce que vraiment da nga ouvert en plus voilà échanger aussi rafetlu nañ ko bu pertinent hein? donc euh, ñu jaajëfal leen yéen encore une fois suñu mbokk internet yi di leen wax ni euh, saa su ne donc nii lay demee euh, dañuy waxtaan ak yéen ci lu soxal askan wi ci loo xamante ni peut-être mu ngi bokk ci liy doxal réew mi donc ñu indil leen ko mettre leen ko donc sur le plan ngeen mën ko consommer en bon escient di rafetlu encore une fois teewaay bi di leen jox dig daje fii ak ay bés ci beneen émission l'entretien